organiser la garde à vue parce que. Euh, foog ñu organiser li nga xam ne moom la ñu duppee la garde à vue parce que garde à vue ci euh, réforme bu fekkee ne dañ leen accusé ci wàllum terrorisme loolee sax mën nañ laa tëj lu toll rek Euh, juróom-ñeent fukki waxtu ak juróom-benn yoo xam ne mën nañ koo toftal ñaari yoon te loole mën na daal di am ci lu tolloog fukki fan ak ñaara waaye bu fekkee ne loole daal nekk lu évidence gis te ne dañ la war a informer ci sa droit ci nga am avocat waaye bu fekkee ne ci benn fan bi ñu teg loxo li nga xam ne mooy takk der yi ñoom ñoo met des lieux waaye léegi nag enquête préliminaire yi ci ay preuves yoo xam ne jot nañ ko am ci loo xam ne kat dañ laa dóor Sénégal dafa daal di ay convention yoo xam ne dañuy tere wàllum dóor waaye tamit ci pacte international bi nga xam ne moo dellu ci droit civil et politique waaye tam ci déclaration bu nga xam ne moo ñeel ak ak yelef doomu aadama ci ay jumtukaay yoo xam ne adduna bi yëpp ñoom ñoo ko daal di yor te loolee moo sut lool ci nga xam ne mooy sunu loi yi bien sûr de la réforme la justice